Anyways.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 jaare fa bakkanam sët tët tët mu ngi wuyoo ci turu moo ba moom daal dafa soupçonné woon jabaram ak waa ji mu bokkandool luwee ci kër gi njort ne soxnaam soosu mu ngi njaaloo ak waa ji xanaa mooy infidélité ci noonu nag ci la dëkkee sànci noppu jabar ji ñoxor njaay rek mu ne ko dangay njaal ak waa ji ci kër gi jabar ji nag bi mu demee ba mënatul dékku accusation yi jëkkër ji teg ci kawam ci la décidé génn kër gi dem choix boobu mu def ne day génn kër gi la ko jëkkër gi ne du fi amee ëskëy tax ba mu jël ab yaat dar di koy dooro dooro door ba jabar ji jaare fa ñàkk bakkanam musiba naaru lay sa nag ziise nañ ko ba soo wattuwul lu mu neew neew dina tëdd juróomi atu kaso ak liggéey boo xam ne sañu koo bañ ma ne nag li mooy jigéen daal boo nekkee ak moom dem ba confiance doxatul seen diggante dem ba mënatoo nekk ak moom ngal la bàyyi ko mu dem seeti leneen nga seeti leneen loolooy dëgg waaye jàpp sa jabar dóor ba mu jaare fa ñàkk bakkanam ndax fiiraange ak njortu lu ñaaw waaw ëllëg nag looy wax doom yi ngeen sukk jur ba noppiit utal nga leen woyu dootul foy ba ilaa yawmi diin waaye tamit jigéen buy sëy dafa am yenn comportement yoo xam ne su amee sa diggante ak góor bu dul sa jëkkër mën naa jur njortu lu ñaaw nag ki sa jëkkër waaw waaw waaw góor bu dul sa jëkkër ngeen bokk lu rek ngeen miinante ba maara dee taali di bëree ka doorante ka dàqante ci biir kër gi nga saxoo ko toppatoo di daw ay kursam di ko defal sax loo dul defal sa borom kër waa buy sangu yaa koy tànqal ndox di ko attaayaal di ko cuuraayal néegam di ko fóotali yéreem ay waay teg ci waa di la may xaalis sa jëkkër bu la ci artoo nga fel ko ne ko sama càmmiñ la te mënoo maa teqaleeg moom yomb na bu sa jëkkër xëyee nga des moom ci kër gi xale yi jàngi ah! dara lu ne mën naa xew te it yàgg naa ko wax Sénégal dafa am góor ñoo xam ni jabari jàmbur yi rek la ñuy wër dañuy xam ne am nga jëkkër sax ñu topp la lakkal la witt ni malaaka jarak langal la ko rek ma ne nag duñ ko def jigéen ju am fu la mukk wow wow wow ma ne bàyyi leen jabaru jàmbur yi laa wax waaye luwe ci kër bu nit ñi xëyee liggéey yi nga des ci kër gi di yoota karaasaatu jabaru jàmbur yi moo tax am na ñoo xam ne medd saxaleen tane moo tax ma jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Koungheul jéggi na dayoo ab braquage fa am ba benn femme ñàkk ci bakkanam ëskëy mbir mi nag nee ñu ni la demee samedi 7 novembre bi weesu vers 18 heures demi ab taxi moo bàyyeekoo ca marché Touba Alieu bi mu ñëwee ba ci àll bi nekk ci diggante village bu Touba Alieu ak Kër Dof nekk ca département bu Koungheul la ay nit yu yor songu wupp pup sol ay kagul ba noppi di tiire ci kaw taxi bi mbete film ma waxati ba benn laal jigéen ju nekkoon ci taxi bi bi ñu koy évacuer ci district sanitaire bi nekk ca Koungheul la ñàkk bakkanam na lillahi wa inna ilayhi rajiun bi braquage bi amee na ci saasi la gendarmerie bi nekk ca Koungheul collaboré gendarmerie bi nekk ca Tambacounda ba ñu teg ci loxo lu toll ci ñeenti nit yu ñu njortu ne dañoo bokk ci braquage boobu cerveau bi jiite band bi nag nee nañu ab détenu bu ñu libéré la janvier bi weesu tëdd na fukki atu kaso ci perquisition yi woy takk der yi def nag teg nañ ci loxo ñaari kalachnikov ak ay balu pistolet ëpplow moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax élève gendarme bi nag li mu def doy na waar ndax dañ koo jàpp fekke kook ñeenti kornetu yamba nga ni ma pëttëllaw i mu ngi am ñaar fukki at ak ñeent ci kanamu tribunal flagrant délit bu ndakaaru nag élève gendarme boobu nangu na ne da doon jëfandikoo drogue xalaas te nag loolu mi ngi ko tàmbali ba muy dugg école gendarmerie en 2019 may laaj nag élève gendarme boobu bu jàppoon yàmbaa ci dileer nan lay def yàmbaa ji moom koy jarul laaj da koy raab muqi moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graw korona la wax Sénégal nag fi mu ne lakk yi takkar naa waat na marché okas lakk na tool ya nekk ca ngànd lakk nañu ba ci sëgu betuwaar yi nekk ca sumbe jun ma ne lakk gi sax bàyyiwul armeel nag boo seetee lakk googu dañ naan kenn xamul lan moo koy causé mooy li ma waxoon rek réew mi il faut ñu bàyyi anarchie bi ñu nekkee sinon yu mel ni du fi jóg waaye tamit feebar bee judd ca nappkat ya war nañoo xoolaat suñu géej gi de mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi yeneen xibaaru buzz